comme ni ngeen ko xamee rek xam nga temps yi kilifa police yi ministre de l'intérieur ak euh, directeur général ak directeur sécurité publique Nous euh, avons réfléchir pour améliorer la sécurité bi ba waral euh, présence bu mag mooy am donc nit ñi aussi di di yokku taxawaayu police fu ci Sénégal Nous rawatina Dakar gi nga xam ne ni man fi laa nekk ci lolu mo waral cile euh, ci goudi ci le commissariat rebeus euh, gannaaw buñu ñu ay geussu yu mat depuis lor ñu ko topone fan yëm ñu ngi ci ñu ngi ci waxtaan ci lañu ñew tombé gaay gars yi nga xamni dañu jël bu yaqku bi ni diko defaat ci yeneen sac pour jëm ko jaayat nit ñi liñ fi fekk presque man euh, téméru ton ak ak lu tek ba fere aussi amna ay yenen dépôt yo xamni ni presque lu fa nek ëpp na Euh, juróom fukki tonnes ceeb bi comme ni nga ko gisee jarul sax ñu leen koy euh, kii euh, ana def yeneen kii mais boo ko xoolee rek xam ne lii doomu adama mala sax yaakaar naa ne soxlawu ko léegi nag loolu yëpp ci liggéeyu police la rek parce que présence policière bi nga xam ne maanaam teewaayu policier yi nga xam ne ñu ngi fépp moo waral lu nit di def rek yàlla dimbali leen ak rapport ak population sénégalaise ñi nga xam ne vraiment ñu ngi jàppale police bu baax a baax a baax ci loolu daal vraiment moo permettre ñu euh, teg loxo lii nga xam ne ni def nañ ko big ci guddi enquête bi nag ubbi nañ ko di ci jokkoo procureur bu baax ak service yi nga xam ne ni ñoom lañ ci war a jokkool